xawoon heure bu nekk di dimbalante ci suñu biir dimbalante sa yàlla tax dimbalante ci jaami yàlla yi nga xam yàlla dogalut seen loxo jot seen ginnaaw liñ ci man ci jàppale leen ñu def ko waaye également dimbale tam suñ njabootu politique ji nekk ci pré par président mat san parce kat njabootu président Macky Sall gi nga xamna ño nek fi tay ci bi région de Kaolack njabot gu goré lañ njabot gu dal lañ njabot gu and ak sago lañ njabot la go xamné xamnañ bu baax li def ak fi jëm xamnañ bu baaxit li dox ak nan lañ koy doxé kon njabootu président Macky Sall gi nek ci bi région bi yépp ma ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu taxaway bi nga xamné képp kenn ci ñoom ba mu jëlee engagement ci kat ci suufu président Macky Sall ak bisab tey bougéwul xefut randuwut yokkatut taayalut ñëpp heure boo leen soxlaa rek ñu engagé wu taxaw ci sa wet pour ñu ànd jàppale président Macky Sall loolu nag sax sax la boo xam ne contrat la bu nekk suñu diggante ak président Macky Sall région de Kaolack dafa jël engagement bàyyi signé ko ak président Macky sàll incha allah baay boobu kenn duñu ñu damay wax ne fii ci région de Kaolack bu fekkonte ne du gëm-gëm ci président Macky Sall kon ñu ñuy dégg ci leneen parce que nag parce que nag bépp doole politique bu nit di jaay ci biir réew mi di ko wax ak président Macky Sall région de Kaolack am na ko waaye ñun ci gëm-gëm ak ànd ak moom pour jàppale ko boobu ci la nekk ci la ñuy sax ci la ñuy liggéey incha allah xam nga politique dafa métti di leen ay nit bu dégg bëccëg di leen yóbbu ñuy tàccoo ko fecc boo bëggee doon boo demee élection ñu rang ba sonn ko teel la munoo faj seen soxla yi waaye nañ sentir ne yaa ngi seen wet munoo faj seen soxla yi waaye nañ sentir ne yaa ngi seen wet loolu nag loolu nag ne amul amul nañ ciy rus amul nañ ciy ragalee kenn. képp koo xam ne daal ci yéen ci rajo la ñuy wax secteur ba nga yor sa présidente ba waxu la lu leer xamal na dafa lekk xaalis ba ñëwul fii na leer ci rajo laay wax bépp présidente laa wax bépp présidente. waaw dëgg merci merci merci merci merci merci ma ne. mbooleem comité yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir Kaolack mbooleem comité yi laa wax comité ku ci nekk incha allah daañu leen jox seen ndimbal ku ci bokk ci foo mën a nekk ci biir Kaolack te gisoo rek xamal na sa président moo la trahi. ma ne xam nga mbir mi ma ne lépp lu mën a doon dañ koo war a teg dañ koo war a teg woo comité ba ne leen mi ngi nii. lu mën doon ñu xamna nangam la nu ngeen koy def ngeen d'accord ci man lool la ànd man ànduma rek ci jëlum xaaliss wala jëlay ay edd dem sédé ko yéenu neen boo légee damay wax ne jeeg bu ci moy ci moytuwul lu la jox ga lek ko da nga bëgg mobiliser mu tëll fépp fo dégg fépp fo dégg mobilisation mu naan damay togg reer wala ma ko may xaar daa gisu boppam ci comité bi maa ngi leen di wax ne leen maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ñu ñu fekkee déwén ak jàmm yàlla sàmmal ñu suñu ànd bi mbas mi yàlla génne ko ci réew mi yàlla dimbale ñu ñu nettali ko ci jàmm damay déglu toujours imam Cheikh Tidiane Ali Cissé di wax ne yàlla nañ ko nettali waaye bu yàlla bu ñu bàyyee lu ñuy nettali di ko réccu kon mbas bi yàlla dem ci jàmm yàlla sàmmal ñu suñu bopp sàmmal ñu suñu réew sàmmal ñu suñu région mais sàmmal ñu également président Macky Sall ba projet yi mu am ci réew mi ak bëgg-bëgg yi ak xalaat yi yàlla may ko kàttan bu ko denee baax nag Mouhamadou Ndiaye Rahma waa ji daf ne Mouhamadou Ndiaye Rahma c'est l'homme fort de Kaolack ma ne c'est pas l'homme de Kaolack c'est pas l'homme fort de Kaolack mais c'est l'homme Kaolack képp ku tudd Maodo njaay sa xel dana day Kaolack ku tudd Kaolack sa xel dana daj du Ndiaye kon moom mooy l'homme Kaolack la ca topp nag tur yi boo ko doon xool Mouhamadou sant wi Ndiaye mouvement bi rahma Mouhamad mooy nabiyu rahma kon benn la ba tey njaay yi nag mooy santu gaynde Ndiaye kon nag bu taxawee fii nekk sang sang politiciens yëpp nekk seen jiit di def li muy def wax dëgg fa yàlla kon duñ def lu dul tatagal ko képp ku sémb dara fii ci Kaolack wala ci Sénégal Cheikh Amadou Bamba jàpp ca Cheikh Ibrahima Niass ak El Hadj jàpp ca bu la neexee ak bu la naqaree li nga bëgg da nga ko am. doo ci wuyu wala boo ko wooyee ñu teg la feneen yow nag ku bëgg sa bunt nga ubbi ko jëlee naa yar bi la yàlla jox fa tabaarakallaahu li yónnent bi sallallaahu alayhi wa waxoon ne yàlla moo ma yar te defaral yar ba yow yàlla moo la yaral boppam. doo wane sa daraja doo wane sa maqaama doo wane sa kaw ci lenn lu dul yar ak dal ak ñëpp ba ñëpp ñëpp ñeme la waaye ñëpp yëpp ñun ak waa ñeseen ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkat ci xadara bii di xadara alxaaji Abdoulaye Niass bi si fa am ñi ngi sa gannaaw di la jàppale ngir sa yar sa teggiin sa yëg ci nit sa mbaax moo tax ñu ànd ak yow waaye ba doon keneen kat law kunta fazzan xalisan qalba lan faddu min hawlika bo nekkon keneen dañ la fi bayyi way ni nga mel. sulu la nit ñi toppee da nga am njëriñ moo tax te njëriñ loolu ko yalla may mu nang ko bokk ak doomu aadama yi ñaata ak ci ren ñaata iit ci ren bisu iit bu jot bisu xam xewu diine bu jot ak diine ju mënti nekk dana jël aw ñaqam woo xam ne moo ko moom lew na ko doomu bokk ñu war a bokkal te yàlla rek tax nit soo bëggee nit di ànd ak moom da ànd moom ci ngor ak sa teraanga waaye yaa ngi ànd ak président Macky ci sa ngor yaa ngi ànd sa teraanga yaa ngi liggéey liggéey boo xamante ni tey sosoo Kaolack de sosoo Kaolack waaye tey koo wootee ku woote woon nga woote yaakaar naa ñu bàyyi woote yëpp ñëw wuyu si la.